asalaamualeykum wa rahmatullah gars yi maa ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax di leen jox seen wàccuwaay donc euh, ma bëgg ñëw rek nag amal ak yéen waxtaan bu ama ama ama am solo tey incha allah euh, pour ñu bari ci ñun ñu mën a am euh, compréhension ci situation réew mi wala bu ma nee nag situation réew mi réew mi Sénégal gaal gi suñu gaal gi ñun ñëpp ñu ñëw gis situation bi nga xam ne euh, boobu la suñu gaal gi nekk euh, bari naa nag tey nag pas comme d'habitude mais am na ay document document yoo xam ne ay scénario ay scénario band bi euh, waxoon nañ leen fii ay mbiru jàppum Amadou Ba waxoon leen fi aussi yeneen yu bari yoo xam ne Macky Sall envisagé woon na ko euh, ba fi may wax ak yéen nii nag ma bëgg a waxtaan ak population sénégalaise et c'est important bu ma nee population sénégalaise partage la vidéo et fexe leen vidéo bi yaatu lool pour doomu aadama yi jot ci je parle à la population sénégalaise euh, démb indil naa leen fii situation ba expliquer leen le général Moussa Fall qui a fait une commande de 36 milliards à travers le fils de Macky Sall, à travers sa propre société, lui, Moussa Fall, la société de son frère. ba xam nañu frère bi fi mu dëkk ak yëpp on le on les a ba commandé fi ay blende il a commandé des blindés voilà le même Moussa Fall il a commandé à à à construire Amadou Sall lañ jox imaginez leen je vous demande ça c'est un président sortant du Sénégal déglu leen ma c'est un président sortant du Sénégal élection war a am au au maximum avant le 2 avril avant le avril mais ah jox nañu doomam un contrat de 136 milliards ñu jox doomam encore un autre contrat de trente huit milliards chiffres yi parce que bi yoon comme ni ngeen ma xamee ma di xool euh, chiffres yi dama bëgg a xool chiffres yi rek ñëw n'est-ce pas leen ma ma ñëw ci chiffres yi ma xool chiffres yi ñëw ngeen am tuuti Euh, compréhension ci li may wax les chiffre que nous avons pour hier chiffres yi ah ma xam ngeen l'Obs wax les chiffres c'est cent trente six milliards pour le commande des logements de ses amis maanaam euh, gendarme yi muy defloo defkatu ñaawtee fii ñi muy jëlloo ñuy fetal booy yi ñi rey booy yi ñi rey jeune sénégalais yi ñi mu reyloo ñi mu reyloo mooy liñ leen di ne le petit clan de Moussa Fall pour gendarmerie ngeen xam du pour yéen de lii du pour ñi baax déedéet pour ñi bon la déglu leen ma ñu ne leen Macky Sall la ngi waaj a dem de mi ngi waaj a tëgg ay élection le 2 avril ba ba ba ba waaw Macky Sall la ngi waaj a tëgg ay élection waaye commandé na ay blindé waaye ñu ngi tabax ay kër pour euh, maanaam comme niñ ko defale woon attends xam nga wonoon naa leen fi ay kër almadi 2 yoo xam ne tabaxal nañ ci Maham Diallo tabaxal ci Sankare maanaam euh, euh, sûreté urbain sûreté urbain commissaire Sankare tabaxal si procureur bandi bii ngeen gis tey ci Dakar tabaxal ci tabaxal ci almadi 2 loolu wanoon naa leen ko fi won leen ba won leen kër yi clé en pour ñu defal leen seen sale boulot loolu moo doon scénario wu Macky Sall scénario Macky Sall boobu bokkoon na ci jàpp Amadou Ba waxoon naa leen ko fi jàpp Amadou Ba jàpp ñaari juge maanaam moom xelam foofu la ko yóbbu ñun ñu ngi ne Macky Sall tëggal ñu ay élection Macky Sall ngi teg ay dil mi ngi waxtaan ak waa OFNAC Macky Sall ngi teg ay deal mi ngi jox ay nit pour ñu waxal ko ay mbir Macky Sall ngi teg ay deal parce que dafa bëgg a coûte que coûte semer le bordel dans le Sénégal dañu bëgg ne ay Tall Sall génn nga tey yaag say menace ndeyam yaag sa bakkan bu tas xaw ma dañ laa jox yàmbaa nga tux ba pare balaa ngay ñëw xaw ma dañ laa jox sàngara kaas nga toj ba pare balaa ngay ñëw xaw ma luñ la yónni waaye doo leen jàpp nday benn sénégalais je vous le garantis doo leen jàpp kenn vous vous n'arrêterez personne dégg nañ la ngay menacé yéen ñi nekkoon bitim réew waaw ñi jóge bitim réew nangam voilà réew mi réew yoon la ñooñu du ñu ay criminel tu sais que c'est pas des criminels ces personnes du ñu ay criminel Aïssata Tall Sall borom garde des Sceaux mais man ba ma juddoo ak léegi mësuma gis nit bu doyadee nii yéen ngeen toog Macky Sall di futti seen ndey di leen teg ci kanamu écran yi ñu leen di doyadal Amadou Ba moom yambar ba mu doon connaissance ce ba léegi nga taxaw Macky Sall envisagé woon na Amadou Ba démissionné ba mu yónnee ay nit xam nga di teg ay dil di saagalu Mambay Niang gis ngeen Mambay Niang ak Souleymane Jules Diop yëgoon nañu 1900 aj ak jaag ne Macky Sall day aj élection yi ñun date des élections la soxla Macky on veut la la date exacte sénégalais yi nous exigeons seulement la date des élections bu ñu mayee Macky Sall cinq minutes de respiration c'est que ñun def nañu problème on a créé ñun on a créé notre problème xam nga ban fan yii yëpp mooy li ma leen di wax rek donte Ousmane Sonko kenn moomu ko ndeyam moom moom moom lu ko neex def. Ousmane Sonko kenn moomu moom moom moom boppam lu ko neex def waaye xamul gore di xoolal tey garde soo leeralaat na leen toroxa toroxati ngeen xam ngeen ñan ñooy accuser Ousmane Sonko ay dialogue c'est les partenaires du Macky Khalifa Sall partenaire u Macky Sall la bàyyi leen kan li may wax de ñan ngeen dégg ñuy accuser Ousmane Sonko Khalifa Sall ay nitu bugaan j'ai des preuves man du ma waxantu ay nitu bugaan Khalifa Sall ay bu bugaan xam nga bugaan ce que vous n'avez pas compris bugaan a créé une armée bu bugaan dafa créé ay faux profil fàtte ngeen waxoon nañ leen ko fi ay at ci ginnaaw ay xale yu jigéen def leen ay kii boo leen xoolee temps bu bugaan fàtte ngeen bu demaan live bu demaan live trente mille chinois ñoo koy seetaan maanaam trente mille personnes artificielles ñoo koy seetaan bu live bi pare nga dem xool ñaata nit ñoo koy aimé dix personnes wala cent ñoo koy aimé Bougane bu demaan live dans un temps normal cent personnes ñoo koy seetaan waaye dafa dem après mu créer li Macky Sall créé xool leen Bougane ak Macky Sall de similarité te dinaa leen wax lu tax c'est parce que les mêmes mercenaires maanaam golo Macky Sall yi yi muy yónni ñoom ñooy golo Bougane yi aussi c'est les mêmes personnes benn clan bi la Macky Sall a Bougane benn doomu aadama bi lañu dañuy déggante tout le temps donc ay nitu Khalifa Sall ay nitu Bougane Khalifa Sall ci boppam Barthélemy Diaz Idi waa PDS ñii ñooy accuser Ousmane Sonko de dialogue léegi dama bëgg ngeen dem xool ndax di ngeen dégg Abdourahmane Dieye wala ngeen dégg ñoom Déthié Fall wala ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di accuser Ousmane Sonko de dialogue wala Moustapha Guirassy parce que ñooñu ils ont compris le deal di système c'est le système qui est en de manipuler les Sénégalais ba ci activiste système bi xam nga système bi du acti du ñu ay activiste de ay liveur système bi système bi am na sax ay liveur système bi am na sax ay liveuru système ñoom ñoo gën a teyaatoo ne Ousmane Sonko waxul ak Macky Sall ñoom ñoo la gën a teyaatoo ne Ousmane Sonko maki Macky Sall amuñu benn combine ñoom ñoo gën a teyaatoo ne Ousmane Sonko du wax ci suuf Ousmane Sonko lépp lu mu wax ci suuf da koy waxaat ci kaw ñoom ñoo gën a tey loolu Khalifa moo dem natt boppam et il est en train de jouer ses dernières cartes et il est mort boo leen xoolee seen liveur yi tamit dañoo moor comme ni Khalifa mooree noonu la yóbbaale ay liveuram yu moor noonu la yóbboo ay fenkatam yu moor boo leen leen xoolee tojuñu fenn yàquñu fenn ñu ngi attaqué nit di duulal nit ñi di fenal nit ñi di wax lu dul dëgg voilà dama leen di wax nag ils sont très liquides ils sont très liquides dinañu jéem ñu lu ne dinañu jënd ay journaliste dinañu jënd ay chroniqueur dinañu jënd ay liveur nee naa leen man Ousmane Tounkara sax sama discours bu changé defal leen seen bopp faveur ngeen désabonné ngeen xam ne waay ji jaay na ngoram loolu c'est important ngeen xam ko gars yi Macky Sall et son scénario un scénario très rapide Macky Sall ne moom de vraiment dafa bëggoon maintenir boppam ci pouvoir bi léegi nag moom xaarul woon Macky sal na s'attendait pas à ce que bu bëggee maintenir boppam ci pouvoir bi affaire bi nekk impopulaire nii maanaam c'est la bi gën a impopulaire ci situation wu Sénégal mooy Macky Sall ba mu poussé élection yi il est devenu le président le plus impopulaire du monde en dix kenn bëggu ko kenn àndul ak moom kenn nawloowu ko kenn wegu ko kenn respecté wu ko kenn faalewu ko donc Macky Sall n'a plus d'alliés alliés yi mu am dinaa leen leen wax Khalifa Sall Idrissa Seck et ils ont utilisé Karim Wade le bête et PDS yàq nañu leen léegi ñoom ñu def benn clan nag ñu ne leen hé gars yi ñun yàqu nañ de xam ngeen lan lañu ñu mën a def fi mu toll nii nañu jàpp kut kookut mat ne ah Ousmane Sonko ngi diil ndax sénégalais yi dañu bañ dealer waaye seen scénario boobu tamit dafa raté parce que Ousmane Sonko ñun sénégalais yi ko nawloo ñun xam nañu ko ba pare parce que ñoom dañu fàtte ne ñun dañu ne discours et parcours ñoom nag discours rek la am amuñu parcours écoutez bien ñoom dañu fàtte ne ñun bi ñuy nawloo Ousmane Sonko on avait dit discours et parcours maanaam suñu xoolee sa wax bu mengoo ak sa jaar-jaar ñu ne yaay waaja waaye buñu xoolee sa wax méngoowul ak sa jaar-jaar ñu ne yow doo waaja donc ñun bi ngeen génnee fan yi yëpp nii sax di accuser Ousmane Sonko de dialogue de nangam de lii de lële xam nga seen wax bi lu tax mu am ampleur ndeysaan parce que doomu aadama yi génn di leen tontu te kenn weddi lu leen de kenn ñëwul fi naan voilà def na deful déedéet dañu ñëw toujours on est constant ñu ne leen ñun nawloowuñu leen nekkuñu fi di weddi ndax xam nañ ne Sonko defu ko xam nga lu nit deful doo fa toog sax naan moo def ak deful ñun xam nañu Ousmane Sonko xam nañu ne Ousmane Sonko du waxaale Sénégal ñun xam nañu loolu nous on connaît le président Ousmane Sonko yéen ngeen yaakaar ne kilifa gu toll ni man yor sama kër yor sama njaboot yor sama liggéeyu bopp yor sama weccatu bopp taxaw tem ne wala nit kii laa bëgg ñu fal ci Sénégal kii laa gëm ma koy teg ci ay caaxaan ma koy teg ci ay tappale ak ay njuuj gars yi ubbi seen bët yi xippi xool xippi ngeen xool Macky Sall moo fii dealer te comme niñ leen ko waxee mi ngi ci tànku continuer ay dilam buñ ko ko mayee ndax ñun Sénégal lan de ñun yenn saa ñu xaw a confortable tuuti déedéet c'est pas le moment dama koy waxaat ma bamtuwaat ko tey dégg ngeen dof boobu Aïssata Tall Sall ñëw di menacé waat sénégalais yi man waa mais man ma ne sénégalais buy waaj a dem président boo xam ne day waaj a tëgg ay élection génn réew mi tëgg ay élection ku gañ a jël kooku lan lay toogati di menacé ay nit doo ma wax Aïssata Tall sal lu muy toogati di menacer waaw ñu jóge bitim réew ñibbi si réew mi yow sa ko moom wala yow yaa doxaan sa yaa Macky Sall cagabu kat sa ndey bi sa jëkkër bi di sàcc bi gën a bon yow yaa moom réew mi yow ñooñu ñëw Sénégal yow yaa moom sa sa baay moom moom réew mi parce que vous êtes menacés parce que ces personnes sont de retour yéen da ngeen yaakaaroon ne nit ñi dañ leen di bàyyeeg réew mi déedéet nous on aime la Sénégal duñ leen ko bàyyee ndeyam Sénégal duñ leen ko bàyyee loolu ngeen bëgg ñu def mooy ñu gedd ñu ne ah on s'en fout on n'aime plus de déedéet Sénégal duñ leen ko defalee noonu dañuy xeex ndey ak yéen xeex ndey ak yéen tëgg leen ay élection ñu dem ay élection ñu doxaan seen ndey ngeen génn réew mi yow Aïssata Tall Sall xam nga ne doo modèle ana xale bu jigéen bu baax boobu la remplacer woon assemblée nationale tour bi lay fàtte de tur bi laay fàtte de dem leen xool député bi remplacer woon Aïssata Tall Sall Podor cette petite jeune fille xam ngeen lan moo xew kooku bàyyi na ndey coalition dof bii bu yàgg mi ngi ci coalition Jomaay xale bu jigéen bi remplacé woon ay Tall sal honorable turam laay fàtte oh très intelligente une fille très intelligente elle était elle était la plus jeune députée du Sénégal elle avait vingt six dama ko fan ndaw soosu bàyyi na ndey coalition wu dof boobu bu yàgg mi ngi ci coalition Jomaay turam laay fàtte de ku xam turam nga indil ma ko ku xàmmee tur bi nga indil ma ko Soda Njaay Soda Marem Njaay Soda Marem Njaay Soda Marem Njaay xale boobu laa fan Soda Marem Njaay moo remplacé woon ay Tall Sall Assemblée nationale mu am fit ay waxam jub te du njuuj njaaj dafa daan toog bu bu député majorité bi di def seeni toj toj mu ne leen hee déglu leen ma bu baax ma wax ak yéen seen ball ball gi ak seen làmmiñu rëy yi ngeen di jël di tas fii ëpp leen kenn fit mais déglu leen ma ma wax voilà respecté nu mais da daan wax gis nga ko bàyyi na ay sata taal Sall bu yàgg Marème Soda Ndiaye xaw ma Soda Marème Ndiaye however you wanna bring the name bàyyi na ko parce que xam nga lu tax mu bàyyi ko parce qu'elle sait qu'elle a un futur politique xale boobu dafa am futur politique te bi mu xoolee band yi xam na na ñiy demuñu mu bàyyi leen ndank delluwaat dem bitim réew yokk njàngam te bi mu yokkee njàngam ma ba pare mu ñëwaat encore ci Sénégal di servir réewam mais bëgg koo def ak ay nit yu jub yu seen loxo set xam ngeen kooku ci ban coalition la bokk coalition Diomaye 2024 yéen tey est-ce que déglu ngeen ay Tall Sall mais ay Tall Sall doomu sénégalais yi tëdd ci kaso bi ci ay fen ngeen tuddee leen ay terroriste ngeen tuddee leen lii tuddee leen laamu naan la waaw ñi ñu bàyyi liberté provisoire la waa liberté provisoire la de wax nga dëgg de liberté biir buy daw la da ngeen jàpp le président Ousmane Sonko dugal ko ci biir kaso mu tàng seen loxo lool ngeen gis dëkk bi di yëngatu ngeen gis dëkk bi di màbb seen kaw ngeen di wut pexe boo leen rëccee Macky Sall en ce moment il veut seulement sauver sa peau Macky Sall deram rek la bëgg a sauver guddi yi may wax waaye bëgg naa ngeen xam ne ak lu mu mën def ci àddina ak lu mu mën a def ci àddina ak lu mu mën a def ci àddina dootu leen yëngal ndey Sénégal déedéet doo leen jàpp kenn xale yi di ngeen bàyyi ñëpp ñu ñibbi seen kër parce que les Sénégalais vous connaissent Sénégalais yi xam nañu leen fi mu toll ni ay Tall Sénégalais ɓe no nganndi mon ɓe nganndiima wallahi on kersini fulɓe ak alpulaar ni mu ragalee tooñ ragal bàkkaar ragal àq yéen ngeen ñëw ñaari bandi ay délinquant ngeen ñëw jàpp suñu réew mii en otage yow Aysata yow nga waroon doon doomu gor yow sa bëtu chinois yi ndegem sa yaay du chinois moo biiral sa ndey doomu xaram bi nga juddu ci ñi jox la sa santu baay noonu rek la mën a deme parce que c'est pas possible que yow mii nga juddoo ci yoon nga bàyyi yay yaay nga mel ni nga mel ni c'est pas possible c'est pas possible jikko Bougane Gueye Dany fini jaam rek duula ka sosa ka tappale ka wuru ca c'est la même chose yow jikko mbay peex jikko Bougane Gueye Dany c'est le même clic ngeen nekk benn groupe golo di def seen yëfu dof seen yëfu dof di fonto sénégalais yi may wax ngay menacer sénégalais yi naan leen waaw ñi ñu jàpp waaw ñi dem bitim réew waaw ñi jóge ci bitim réew ñëw ci réew mi waaw jàpp ay sa Tall Sall ñun ñuy wax ak yow nekk bitim réew sax vous avez créé un mandat d'arrêt international fan la toll ba sa duulkat yooyu daan duul bis bu ne waa FBI nga wër ak tunkaraak diwa nga wër ak kële diwa nga kii fan la toll fenkat yi ngeen doon fu mu toll kenn xamu ko yéen wek leen seen bopp jox seen bopp cër munu leen ko yéen munu jox seen bopp cër doomu sénégalais yi nga jàpp y a des centaines de sénégalais voire des milliers en prison yu la deful waxuñu la àndal ak Macky ànduñoo ak Macky ngeen jàpp dugal ci kaso bi ñii ngeen ne leen waaw ne dénoncel ne leen bëggatuma Sonko duñu la faale nga dugal ci biir kaso bi ñii ñu takk bracelet ba ci waa APR yuy génn nee nañu ñoom ñoo doon dénoncé di joxe ay turu ay Aïssata Tall Sall yéen ay mbaam déglu leen waa APR yi gars yi dama bëgg ngeen déglu lii c'est important excusez-moi hein c'est très important ñu dégloon lii man dama déglu lii et ça m'a choqué et shock me to the parce que xam nga lu mu choqué ma parce que les sénégalais ne méritent pas ça sénégalais yi mérité wuñu lii j'ai été choqué quand j'ai entendu ça ma dégg ay nitu APR yuy toog naan ñun ñoo doon dénoncer niñi di joxe seen numéro téléphone maanaam tu connais ce qui est grave dans ndeysaan man ngaa joxe numéro téléphone Alima walla Babacar bu la deful dara am na sénégalais yoo xam ne dañ leen jëli seen kër fekk ñu ngi ngénte am ñoo xam ne dañu génn nii rek ci bitik di dox ci mbedd rek ñu jàpp leen yóbbu parce que ay nit ñooy joxe ay numéro jàmbur ma dem ba ci suñu benn xarit ndeysaan ma leen parce que ñu bari ñëw may bind ay message ndeysaan il y un frère de l'Allemagne Allemagne waaw Allemagne la je pense tey ndeysaan mu bind ma message voilà mi ngi nii le frère nee na seen frère bu tudd Basirou ah non Mfali euh, Mfali Sané Nfaali Sané Nfaali Sané NF ALLY Nsaali Sané Kër Massar Sud Nsaali Sané jouru ngénteem dafa doon séddale laax yëgul xamul lu géej gi riir ñu jékki-jékki dem fekk ko këram këf yóbbu moom ak ñeneen kër meeru kër Massar keroog bi ñu koy jël bilaal Diatta maa ngi moom téléphone deful waxul tooñul kenn ñu dem këf yóbbu tey gis naa lobs comme yàq ay yàqkat lañu l'observateur may may dànkaafuwaat Birane rek Birane Ndour DG wu RFM xawma GFM GFM groupe Futur Média Birane nga wax sa l'observateur yooyu amoon na fi ay temps ñu régler tuuti waaye ñu ngi dellu siwaat ci ay tànk yu bon delloo siwaat leen seen xel nguuru Macky Sall gi dafa jeex ba pare Macky Sall kenn ko ànd ak sagoom dootul teg moom un président sortant un président foutu kan mooy ànd ak moom Macky Sall est foutu il a ngeen jàpp ay doomu jàmbur de tout bord ngeen tëj leen planifié gars yi amul bépp tappale scénario boo xam ne nekk ko di essayé fi may wax ak yéen nii lépp loo xam rek Macky Sall mi ngi koy essayé lépp loo xam makki Sall la koy jéem pour bañ a dem bëggut a dem sénégalais yu bari da nga leen di wax lii ils ne comprennent pas Macky ne veut pas quitter ce pays Macky bëggut a dem de bëggut a dem lijjantiwu la dem waajalu la dem dama bëgg ñu dégloondoo waa APR na nañ leen déglu. xamuñu ko ndaxte wax dëgg yàlla xamuñu lu xew ci suuf. déglu leen waa APR. jàpp xëy na la ca waruñu leen woon bàyyi la ca ginnaaw ñun xamuñu ko. ndaxte wax dëgg yàlla xamuñu lu xew ci suuf mais ku ci am xel xam nga ne am na lu xew ci suuf loo xam ne xamuñu ko. waaw am na lu xew ci suuf loo xam ne xamuñu ko te gis waaw te ay nit lañu dañuy xalaat mën nañu juum nag bu ñu juumee dañuy sax dañuy nangu sax ne juum nañu te ñun sax dañoo bëgg sax juum dañoo bëgg ah ñu ne ñun te liñ fi doon wax lépp ndekete amul juum nañu loolu lañ bëgg mais tamit li ne suñu xol dinañ ko génnee nit ñi dañ leen di bàyyi ñu taxaw yore seen seen seen téléphone di filmer duñu di mel ni dañuy ñaawal le président ay ñu naan dañoo aji woon màkk ay saxaaba ñoo génn ku ci génn taxaw ci buntu prison bi ne la combat continue loolu ñun daf ñuy metti ndax dañ cee xeex dañoo taxawoon dénoncé ay nit ñu jàpp leen suñu vie mi ngi en danger ndax dañoo exposé woon suñu vie loolu lépp mi ngi ci dañoo toogoon di joxe ay numéro xammee leen baatu ndaw si kii da ngeen war a da ko war a lijjanti ndaw si sénégalais yi dañ ko war a wër fépp fu mun a ñu toccottu ndayam gis ngeen ndaw si lijjanti leen ko kii nit ñu mel nii man de man pare naa pour joxe toute somme pour boppam parce que nit ñu mel nii baaxuñ ci société naka ngay gisee doomeeraam ju mel nii nee na ñoom ñoo doon dénoncé maanaam borom këru jàmbur yi dem prison ñii ñoo leen doon fenal def nañoo defuñu yëpp ñoom dañuy dem rek dénoncer te dégg naa ndeysaan ñoom dénoncer bi biñ ko daan def gis naa si ay prix yu varié waaye dégg naa dañ leen daan jox entre quarante mille cinquante mille ba cent mille par dénonciation maanaam man man naa jékki-jékki rek inventé ne a ah, gis naa Ablaye Ndiaye de mi ngi woon ci marché bi te Ablaye Ndiaye musul jege marché bi dañu continuer déglu ko dañoo dañoo dañoo infiltré woon ay groupe whatsapp di boole ay nit ñu leen di jàpp ñooñu ñu ngi mbedd mi. kon nag war nañoo toog waxante sinon kon ñu fay live bi dem toog xaar ba ba ñu xaar ba ji mi jamono ñu doog taa. mu ne ñoom dañu doon dugg ci ay groupe whatsapp di infiltré di dénoncé ay nit maanaam di dem jaayi ay doomu aadama déglu ngeen kii li muy wax c'est très dangereux sax déglu leen. live yi live kon amul amatul sens ñu toog di live amatul bu fekkee dañu war a toog xaar rek kon nañu fay live yi ñun ñëpp ñu ñu xaar ba junne jamono ñu doog a live mais li des ñu xool dinañ ko génnee lii ñu gis nii neexuñu dañ cee mënul dara mais neexuñu ndax ñoo fi jàppoon ay terroriste ñoo fi jàppoon ay force ut lu lu nañu tur bu ne dégg nañ ko ñu xëy bàyyi leen ci mbedd mi est-ce que loolu est-ce que loolu tamit wóor na. non seulement neexuñu mais dafa dalul xel waaw lii lii xew lii dalul xel de. dalul xel suñu xel dalul est-ce que tamit li ñuy def tamit est-ce que alerté nañu instant bi am nañu droit alerté xëy na am na ay renseignements généraux yu nekk fii du ñu déglu xëy na dinañ ko yeggee lépp autorité yi kon bàyyi leen ñu wax li ne suñu xel bàyyi leen ñu wax li ne suñu xol ñu génne ko des doo dootoo bëgg sax yéeg laay du wax ndax boo waxee ñu ne la xër tam waroo wax lii. voilà kii boo leen ko dégloo dafa xaw a dër nag day góorgóorlu mais kii fexe leen ngeen am photoom ñu xam kan la ñu xam nu ñuy deflanteeg moom ndaw si ñii ay doomu xaraam lañu ñii duñu ay nit ñu baax ah te à entendu ñoom ñoo doon sosal doomu jàmbur yi ñu leen di jàpp di leen tëj kaso pour rien du tout li mu wax nii nag moo yóbbu ci beneen kaabi bëggoon naa laal ci ndaw si war di ni waaye bëgg naa rassurer sénégalais yi ne élection yi kenn mënu koo toxal xaar ma liiral leen lii Amadou Ba maanaam kenn mënul changer candidat yi loolu mënta nekk voilà nañu dem déglu kii nga xam ne moom mooy euh, nee nañu garde soo le ridicule tue, ne tue plus dans ce pays déglu leen déglu leen ndaw si niñ koy ridiculiser déglu leen journaliste niñ koy ridiculiser. ces libérations sont des libertés provisoires. déglu c'est pas encore tout à fait fini. et je à le rappeler. les gens je l'espère auront pourront tirer la substance de toutes ces leçons apprises je l'espère bien. mais que personne ne s'abuse à penser que l'aventure s'arrête là. Les juridictions vont continuer leur travail parce que c'est de leur devoir et de leur responsabilité que de le faire. Donc ce sont des libertés provisoires. Je le dis parce que beaucoup se sont dit, mais on va être indemnisé parce qu'on a été injustement emprisonné. Ils ont été emprisonnés, oui, injustement, non. Et quand est-ce qu'une indemnisation pourra intervenir seulement quand un juge de jugement, pas le procureur, pas le juge de l'instruction, quand le juge qui va juger définitivement l'affaire va leur dire, je considère que vous n'avez rien fait. Voilà, là, une dame fille. Oui, madame, madame, madame le garde des Sceaux, je suis inquiet pour mon pays, vous savez. On a libéré des commandos, on a libéré des terroristes, on a libéré des C'est grave pour mon pays. Ah, ah, en fait, ce sont les chefs d'accusation pour lesquels ils ont été retenus. Et donc, du coup, là, depuis ce week-end, je ne dors pas. Je suis en sécurité. Et en sécurité. Et donc, euh, ce, le week-end, j'ai vu à Acapes, au terrain, Acapes, les, les policiers avec leurs chars de combat et autres. J'ai pensé que c'était pour notre sécurité. En réalité, c'était pour les manifestants de H24 et autres. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que, Madame le garde des Sceaux, vous, en tant que justice. Et l'État du Sénégal, le gouvernement, dans un cadre général, ils ont prévu. Parce que c'est libérer, c'est bien, mais libérer des terroristes, moi, sont les lois vous avez données. Et je rappelle que, madame, il a des prisonniers détenus politiques. Le maire, le maire des Bassés Assini qui est là des salés. Mais attends, c'est un détenu ou pas J'ai vu un jeune avec, euh, dans vidéo qui dit qu'on lui a dit, bon, il faut Il a refusé, on l'a amené en prison. Comment vous l'appelez Merci madame. gàcce du reyati gàcce du reyati gàcce du reyati ci réew mi mais je vais dire à Macky Sall sama waxu nit la rek sëñ Macky ma bëgg laa ne sa groupe comploteur boobu la wër nga ànd ko Farba Ngom waa PDS nga ànd ko Mame Mbaye Niang ak Souleymane Jules Diop bëgg nañu Macky nga dellu ginnaaw te xam ne lii nga xam ne moom nga sumb wala moom nga sos doo ci am ndam xam nañu dégg nañu ci wéyu béy ne bokk na ci sax ay plan jàpp ay attekat waaye xam naa ne attekatu senegal yi ñàkkuñu fayda jot nañu ci wéyu béy ne yaa ngi waajal ànd koog sa procureur de l'OFNAC Bassirou Gueye ma nga xam ne moom nga jàppalu woon mu jàpp sénégalais yu baax yi ci réew mi yépp jiiñ leen accuser leen sosal leen fenal leen ak ndelam yaa ngi waajal di layam layami ne wala dangay ngay jàpp yow seen candidat Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba le poltron àdduna bi yëpp xam ko muy tapet ndax moom tey waroon na koo fekk mu démissionné bu yàgg waaye Amadou Ba du démissionné ndax gis nañ fi Thérèse Faye génn di di pamti pamtee mel ni jën ci biir ndox ci biti ndox Macky delloo siwaatal sa xel Macky delloo siwaatal sa xel ñi lay puus di la jay di la nax bu dëkk bi doon takk ñooy njëkk daw abal la ñi la bëgg duggal ci guuta demoon nañ sax ba xam remplaçant wu Amadou Ba <laughs> parce que waa ji dafa scénarisé woon ne soit Amadou Ba moom daf ko bëggoon dàq waaye nee na ko dàq day bàyyi mu mu mu mu mu mu démissionné Amadou Ba bañ demul de Amadou Ba moom xar moom boo foo ko takkee buum ci baat bi foo ko xëcc mu topp la Macky dellul ginnaaw ñu ngi lay jay tu veux semer le chaos la le Sénégal on te connaît mais tu, tu ne réussiras pas bordel dans pays tu ne réussiras pas doo am ndam de déedéet lépp loo waaj ci senegal lépp loo pare ci miim réew wallahi billahi tallahi lazim doo am ndam di nga échouer tu vas échouer et tu vas continuer d'échouer nous on demande des élections et une date ferme des élections nekkuñu fi di layam-layame ak yow déedéet nous demandons notre fichier électoral layam-layame wu ñoo ak yow de caaxaan nag baaxul ndax boo seqee nit ku doyadi wala nit ku matadi ndeysaan day nekk ci ay tooxa doonam yaakaar ne moo ci nekk déedéet Macky ñun ay sénégalais lañu te ñu bàyyi benn doomu aadama sacrifier ñu wala sacrifier suñu dëkk il faut nga xam loolu man mën naa laa garantiral ne li ngay layam layam yëpp doo ci am ndam gars bàyyi leen xelaa ah. waa comme ni mu montalee woon Sonko ay vidéo ay audio mi ngi ci ay montage audio que vidéo que lu mu lu mu man Macky Sall la nga koy jéem a def ay montage artificiel ay tappale ma ngi koy waajal ma ngay def nañu dëgër de les sénégalais il faut pas qu'on se laisse on on se baisse les bras man am naa kilifa yu bari yu ma xam di waxtaan ñoom te ñu may yëgal rek ne Macky est un politicien mort moom deena na c'est président mort dee na ba pare li américain di wax buñ ko mayaat life ne la ne le donnons pas vie Macky est déjà mort ne le pas vie ci ay deal rek comme ni mu defee woon ci mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ay montage vidéo yi ñàkk xorom ay tappale ay ñoom mambay ñaa ñii ñoo nekkoon ci ginnaaw ay ñoom Souleymane Jules Diop mii dof dof lu nii Sonko bu ma yëgoon nit kuy wax ak Sonko ma ne ko mu def lii léegi ba ñu demee ba ñu véhiculer seen message boobu jàllul lan la ñu def ñu ñëwaat ne Sonko ngi waxtaan ak Macky Sall te pourtant xam nañu ne Sonko du waxtaan ak Macky Sall parce que li ngeen comprendre mooy Sonko nitu kàddu la Macky Sall d'ailleurs déjà dama bëgg a xam rek bu waxtaanoon ak sénégalais lu ñuy waxtaan parce que Macky Sall lépp lu mu mën a waxtaan mënta changer candidat yi mënta bañ a amal élection lenn rek la mën a def lenn képp mooy waxtaanee élection bi date bi mais pourquoi loolu c'est pas la peine parce que tey Macky Sall mën naa génn na ñàkk ngeen trois semaines delloo naa leen seen trois semaines élection lan moo tax ngeen yaakaar ba léegi ne Macky Sall jàpp ci nguur gi te woo bàyyi laaj leen ko sen bopp ba nga naa sénégalais yi ngeen laaj ko seen bopp de lan moo tax Macky Sall jàpp nguur gi ba léegi kot koti te bàyyi est-ce que toog ngeen laaj loolu seen bopp question boobu laa leen di bàyyee bu subaa ma ñëwaat continuer incha allah wa salaamualeykum wa rahmatullah wa barakatu